yéen tam ñu ngi lay jaajëfal lu baax a baax mm-hmm. ci topp geeg euh, teewlu gi ñu ngi fi ak Djibril Niang ni ñu ko defee altine gu jot ngir jukki leen euh, xibaaru euh, tàggat yaram Djibril maa di la fay soxna Aïssa Diakhaté. si. ñii rek sant yàlla bu baax. naka week-end bi ça a été un week-end bi oui ça a été vraiment surtout surtout avec le début du championnat. ah kon nag dañ ciy jàll léegi léegi la page des Aminata Sambou qui perturbe de l'autre côté mais il va venir elle va venir nous rejoindre d'un moment à l'autre pour ci première journée war a ah? mm-hmm. sax lañ koy ndar ak euh, match yoo xamante ni Ligue am na benn programme Ligue 2 également am programme euh, ndiki tey kon ci lundi mu nekk ay match yoo xamante déjà amoon na clôturer euh, championnat bu Ligue Pro bu Sénégal mi ngi noonu déjà déjà si côté de 2 euh, lundi RS Yoff moom mooy recevoir euh, Azak euh, Ndiambour 16h30 la. Euh, si diggante ñaari équipe yi résultat yi si kaw nag mooy yoo xamante moo tukkee si week-end bi. Mhm. Euh, Thiès FC moom dafa perte à domicile Oslo moo ko gagné 2-1 2 buts à 1. Euh, mu nekk nag ab surprise ndax ñaari tali ñi daaw mi ngi nekkoon si championnat amateur bi à domicile benn victoire lañ si nemmee ko muy bu fële koon sa Amadou Bari la woon ni démb mu daan Kër Madior 3 buts à 1 wala daan CNFC ñoom dañoo mas nul mu nekk nekkoon euh, derby Thiessois bi euh, bu dee si asalem euh, moom Amitié moo ko fekk démb daal di koy daan ñaari bal si dara kon tey lañ fas yéene kon ndar keppe championnat première division Ligue 2 kon bu Sénégal seen première journée bu fekkee ni yem na ko ñu xool tamit si côté Ligue 1 bu Sénégal ñoom it tey dinañ amal seen benn jongante laata ñu koy fas yéene kon ndar keppe ñoom ginnaaw bañ ko dooree si samedi gi jeexal ko si dimanche bi ak victoire kon bu Pikine démb euh, un but à zéro digganteem ak euh, Wakam Gorée daal di euh, match nul ak jàmbaar ku nekk benn bal nga am jàmbaar dafa égaliser Gorée moo njëkkoon mëne Casa ak Linguère tamit def match nul fële sa stade régional bu Kolda stade de Mbour ak Génération Foot dañoo témboo kenn dugalu sa moroom dara nit ki démb nag samedi kon nañ ko dooroon match diggante Jaraaf ak géej waaye ku nekk benn bal la am Tëngéej daan jamono Fatick ñaari bal si benn kon si samedi bi la tey ca lañ koy ndarkeppee euh, diggante Sonacos bu Diourbel ak Dakar sacré bu 16h30 euh, minutes jotee. tamit am na ay joueurs yoo xam ne nii dañoo déterminé lool ci euh, euh, li nga xam na moo di bëccëg. waaw ku si gën nag ràññee ko ay sa mën nañ ko tuddee noonu mu di euh, Abdoulaye Kassama moom nag doomu gambi la. Mm. moom daaw mi ngi nekkee woon ci Casa nekkoon sax meilleur bu championnat bu Sénégal dugal 12 buts ren ji nag daanaka nu mu dooree daanaka xel tam mën naa dal ci moom ren nag géejuwaay ñoo ko recruter ci côté kon équipe bu banlieue bi la daal di kon féete ñoom dañoo témboog jaraaf fële kon ci stade Iba Mar Diop ku nekk daal di dugal euh, benn bal kon nag ñu xool réalisation bi nga xam te ni Abdoulaye Gassama euh, def na ko niki si euh, samedi gi. daaw ah, bi bu rafet la. rafet na trop Aïcha. Mm. déjà muy wan kon daaw bu muy jël. <laughs> en tout cas c'est un mm. direct. Mm. en tout cas premier de la saison. boo xamante ne ñu gisagum ko euh, moom Abdoulaye Kassama di attaquant gambien jot a jaar si euh, Latrikunda United en Gambie. -hmm. laata muy ñëw kon fii si euh, championnat bu Sénégal njëkkee kon ci Casa Sport bi nga xam ne def na fa trois saisons. ren nag mooy première saison am kon ak les Crabes les Crabes mooy waa Guédiawaye football club bi nga xamante ne ren Ah, moom moo ko yore Mbaye Badji moom ni ki daaw daanaka nu mu jugee Tëngéej neexul ndax Tëngéej da ko mujjee euh, remercier ah, si euh, biir championnat bu Sénégal ren nag Guédiawaye daal di koy recruter mu di équipe bi nga xamante ni ah, suñu ministre des sports moom moo ko jiite mu di Lat Diop Lat Diop mooy président bu Guédiawaye football club voilà mi ngi noonu ren mooy euh, deuxième troisième saison ndax ba mu koy jël en Ligue 2 mi ngi fekkoon Guédiawaye jege euh, deuxième partie bu championnat bu Ligue de mu yéegal ko def ak ñoom daaw Ligue ren moo nekk deuxième année en Ligue 1 donc si euh, équipe bu Guédiawaye football club moom Lat Diop bi xam xamante ne fal nañ ko lu yàggul dara mu doon ministre des sports kon bu Sénégal utu fa ki nga xamante ni moom moo di gonek Thiès bi di Yankhoba Diattara kon boppu fédération sénégalaise bu euh, football kon nag si côté Jaraaf sax Assane Mbodj moom mujjee égaliser permettre équipe bu euh, Jaraaf bu Malick Daaf moom mi nga ni dafa bàyyi sélection euh, équipe nationale u bu Sénégal ñëw dellusiwaat si Jaraaf mu di këram kon mujjee tax ba ñaar équipe bi partage point yi ku nekk am benn poñ ci sa kangi morom kon ay sa li moo nekkoon loo xamante ni moo di lu soxaloon wàllum football local bi local bi ñu mhm. dem nag ca biti réew bi waxtaanee nag coow bi nga xam ne jot nañu koo dàqani. waaw ay sa foofu nag jàppoon ni kon euh, lu euh, euh, daanaka lu ñëpp kon di ñaawlu si wàllum football moo am ni ki démb fële kon sa Vélodrome wala sax lu ko jege ndax bus bi nga xamante ni waa Lyon moom lañ jëloon ngir mën a jouer seen jongante seen diggante ak waa Marseille si derby bu ñu naan classico donc olympique. olympique de Marseille ak olympique euh, lyonnais ah, si boobee masa nag xaar te euh, mujjee nañ ko xaar waaye mujjewul am lu ko waral nag moo di waa Marseille seen supporter dañoo dogaale waa Lyon yàq seen bis bi ki la nag di seen entraîneur ah, di Grosso nekkoon sax jour ay jamono foofee kon sa Lyon ak ah, ginnaaw si nag mu mujjee dugg moo nekk ni sax Grosso di entraîneur bu Lyon moom lañ mujjee gàññi si bët bañ mujjee kon band kanam gi li mooy bis bi nga xamante ni waa Lyon ñoo ko euh, yàqati ba yàqu nii ginnaaw si nag lañ mujjee jël ndogal ne match bi dañ koy dàq ba jimi jamono mu doon nag loo xamante ne jamono ji Marseille wala sax France ay sanctions teg ko ñu daal di def euh, daanaka musta am si football bu France euh, ndax ñoom sax ñi ngi wax ay seen i ñoom euh, daanaka classico bi saa buy am bu Lyon di ñëw Marseille dañ leen di dogaale di mm-hmm. leen agressé mm-hmm. mais agression bu mel ni musta am si biir Lyon daan nañ leen sànni ay xeer daanu daanu yàq seen bis mais bi paa moom mm-hmm. dafa jéggi dafa dafa jéggi dafa jéggi dayoo te lii am nag vraiment mi ngi doog am ñu dem bay gaañ entraîneur uh-huh. adjoint également tamit mujjee mujjee aussi mucc ndax moom it ba mu wàccee si stade bi tamit jot na jël wàllam gaañ nañ ko moom it mais en tout ñuy seen moom mooy Grosso moom mooy entraîneur bu Lyon te Lyon ren ji si championnat mooy ndàdde ren dara doxagu fa ndax euh, jafe-jafe yu métti la ñuy dund lii kon bu si dollee ko Aïcha day doon loo xamante dina leen gën a mais euh, Europe tamit. fépp euh, la Aïcha surtout c'est pas la première fois. lii dafa am c'est pas la première fois. daaw aussi je pense mm. que stade bi wàccoon nañ fa fees fa dellu. waay créé fa attroupement. ba mm. l'irréparable malheureusement c'est produit. c'est ça en tout cas aussi agression bi dafa gën a poussé wu. dafa gën a poussé wu te lii il faut ñu jóg ci balaa moom ay mordom. c'est ça parce que lii mënoon na am mordom bu ñu demee ba sa yàqati euh, mm. bis bu mel ni ay jour nekkoon ci biir car bi dirigeant ñëpp ne fa xeer yooyu mënoon na pénétrer gaañ leen foo xamante ni après kenn dootu ko nettali kii tamit déjà seen entraîneur grosso mën na si ñàkk bëtam waaye xamoo xeer bi nan la ko dalee carrément si kanam wala yan vitre vitre si oto yi ñoo dugg si bëtam wala yooyu yooyu mën na nekk mhm. mu nekk en loo xamante waa ligue euh, en française ñoom dinañ si jël seen i a fexe ba Lyon bu fekkee ni daal euh, war nañ ko mën a jox ay poñ ñu jox ko poñam mhm. Marseille ñu jël ay sanctions yu diis mhm. euh, teg ko seen supporters yi nga xamante ni ñooñu mën nañ ne donc amuñu place si stade bi te souvent boo xoolee championnats européens yi te ñii boo moytu bu ñu leen identifier door ñu teg seen tànk aysa bu fekkee jàll nañ ko rek daal di kon seetaan rek benn si bii boo xamante ni Jude Bellingham moo ko dugal mu di euh, militaire bu euh, Real Madrid bitam bi nag pourquoi mu am solo mooy dafa permettre Real Madrid mu daan Barça si classico bi nga xamante ni moo doon am Espagne euh, samedi la woon 2 buts à mhm. doomu Angleterre boobu bi nga xam ne aysa sénégalais xam nañ ko bu baax mhm. ndax si coupe du monde ba diggante Sénégal Angleterre moo tere woon nelaw suñu militaire moo leen lekkoon carrément mu ngi noonu deuxième Jude Bellingham di kon dugal permettre Real daal di am ndam seen digganteeg euh, Barcelone. en mhm. tout cas mu permettre euh, supporter Barça yi kon nu ñu passé seen weekend ay sa neexu. ah yoonu mais yoon yemul si benn xale naa benn waaw Abdoulaye boobu mën na ko décortiquer. très très boobu léegi expert la en football. ci centre ba. waaw tax bi bi yomb ci moom. waaw te xam na ne góol bi amatul équilibre. Mhm. ci caax yi. Mhm. ba tax na bii bu rafet la. dafay fàttali bii bu ñu jokka wone léegi. mu mhm. xëyee fii ci Sénégal. boobu loobe la. dafa am loobe am likarne am ras de terre. ci Abdoulaye mu ne bii mun na faa expert la léegi de ni ngay gisee nii <laughs> papa yi Mouhamed Bob. futur champion ay war na la war na la Mouhamed. yow c'est un champion. suñu champion bu Sadio Mané. jërëjëf ñu koy nuyu baax moom Mouhamed Bob. <laughs> vraiment di ko jaajëfal ay di la jaajëfal ay di la wax ni rek tamit ki démb aussi amoon na combat bu amoon solo bi nga xamante ni Pokola Balde di ñam mm. jërwaatu Ama Balde moom mujjee am ndam si combat bu métti diggante ma gàkku de deret bi génn na sonnoon na dem mais mm. finalement mm. Euh, moom mujjee daan par euh, quatre appels mujjee def gàkku de mu nekkoon derby Pikine Guédiawaye le temps kon ñuy xaar di jaay ji ndiki dimanche kon bii di ñëw pour le combat royal waaw dem amoon na ambiance quoi waaw moo nekkoon avant goût bi hmm, di xaar euh, le combat bi créé ba tey tamit violence. parce que ci ci la ci koñ la. te mhm. voilà Pikine moom bu amee ndam ñu ngi dëkk auteur. gis nañ ay agression yu grave moo doon am foofu. loolu il faut ñu dénoncer ko te dañuy continuer di ko dénoncer. surtout ay suñu dëkkee si côté stade bi souvent loolu mooy nekk seen jafe-jafe ak ñu war a jaar diggante buntu Pikine bi. Euh, benn heure sawar ñëpp ñu ngi préparer le 6 bi. fi ni ku am sa événement reporté nga ko eh. fi ne moom ku ci aussi noonu moom suba doo ngénte yow da bàyyi rek ba dimanche beneen bi moom parce que mm. non doo xew non doo xew xew doo dem doo dikk lépp lu jógee côté Pikine bi moom boo moytul dimanche moom foog jug si bu baax baax dañuy kii sagam moo mel nii démb ah. Ama Baldé bu ñëwee fu jëm ah. jaajëfalu baax a baax ci <laughs> buntu kër Ablaye boobu la de buntu kër Ablaye boobu la moom démb seen naa ko si jubilé yi quoi <laughs> Mbow. waaw Pikine la waaw mi ngi la Pikinité ah, alors on se donne rendez-vous lundi prochain lundi prochain incha allah Aïssa en tout cas kontaan noonu nañ amoon mbégte kontaan te ak suñuy téléspectateurs. jaajëf ah, di dikkaat ak yéen ci résultat merci c'est toujours un plaisir vraiment di jokkoo ak yow euh, Djibril Niang kon léegi léegi dañuy jàll ci la revue des titres ànd ceeg monsieur le